ma ne ko bisimilah salaamaaleykum salaamaaleykum Mbartalmi TV maa ngi leen di siyaar di leen màggal di leen jox seen yéeguwaay di ñaan ñu commencé émission bi ci bisimilah terminé ko ci alhamdulilah rabbi alamin ñun ñëwee fekk fi jàmm école police fii nii après match bu ñu paree bàyyi fi jàmm bu ñu demee kër ga fekk fa jàmm ju gën a bëri <coughs> yàlla am na ko mën na ko sañ na ko te yàlla nañu ko defal quoi. c'est-à-dire àdduna damay dégg mag ñi di expliquer quoi lépp lu lay. lépp loo gis ci àdduna rek boo yarul mënoo koo téye lépp loo gis ci àdduna boo yaruwul mënoo koo am te football defe naa ni discipline la disipline la avant tout parce que football naka la nekkee discipline moom moo tax gars yi arbitre di ne ci biir terrain bi pour rien que rek ku jàdd yoon mu teg la ci yoon dafa am yoon yoo xamante ni nag boo ko jàddoo moom sanction moom mooy dal di ñëw sanction boobu noonu sax conseil disipline lay jóge vrai ou kon donc ce qui veut diir que ni adduna lépp loo gis rek discipline la lépp loo gis rek discipline dafa am solo discipline naka la amee solo moom mooy tey nit da lay gis nga xamadi li nga bëgg mënu la koo defal nit da gis nag boo teeyee yaru da ngay dégg ñu naan la boo nee tekk tekk war la yoon te tekk ak tekk ak teey mooy discipline des fois nag boo ne dañuy politique da ngay jàpp gars yi itam ñu ni ah saa kon day politique non politique sociale politique sociale moom mooy dañu yore ay xale léegi boo yoree ay xale nag foog ngay jéem a xool ci yan bunt ngay jaar ba xale yi li ñuy wër ci foofu noonu ci terrain bi ñu gis ko li ñuy wër ci seen avenir ci ci ci au niveau bi ñu gis ko li ñuy wër ci nga xamante ni moom moo leen di jëmale kanam moom moo tax ñu bàyyi seen lépp ñëw ñu gis ko fa léegi nag buñ ko buñ bu nee politique politique boobu ñoo ñun la ñuy def politique boo xamante ni dinañ joge ci dinañ jëlee booy ci plan A yóbbu leen ci plan B wala jëlee nañ ci plan B yóbbuleen ci plan C pour nga xamante ni ñoom lépp lu ñuy wut lépp lu seen moroom di am ci muy liggéey beneen liggéey ñoom dinañ ko mën a am ci ballon bi quoi parce que defe naa ni bal bi mën na lu ne émission bi ñu mujjee def waxoon naa ko quoi du jeex du xaaj donc du jeex du xaaj mooy li ma lay wax chaque jour rek booy ay jàmbaar lañu quoi naka lañ nekkee ay jàmbaar du booy yi ma yor rek Africa Sport Football Club joueur Sénégal yëpp laay wax ay jàmbaar lañ da ngay gis bu nu xëyee gàddu seen saak moom moo xam ñu ne entrainement sept heures nga dëkk site yoo xamante ni sawaay pour nga am passe bi sax c'est tout à fait un problème ngay jaayante di dem nga ñëwaat am problème mu këyit bi comprendre nga. am problème këyit bi pour nga am ko problème lay doon sa papa mën na la déclarer comme quoi que mën na la baña déclarer amna yo xamanteni du waxu média amna yo xamanteni waxu bir neeg la comprendre nga peut-être gaay ñom buñu déggé dinañ comprendre fi waxé mom moy ci waxu bir neeg bi ci problème papier yi foog ñu dimbali xalé yi pour ñu am ay këyit sa parce que këyit boko amul mënoo am dara këyit boko amul mënoo mënoo mënoo mënoo avancer ben yoon sa parce que fépp foo dugg rek dañ la naan sa carte wala sa munoo tukki dañ la naan sa passeport. waaw message bi may lancé du ma wax kenn ci biir famille laay njëkkee parce que biir famille lu tax ma cay njëkkee biir famille dañu defe ni ki koy def day taxawaalu ci dañu defe ni football ki koy def amul fulla ci li muy def dañu defe ni football ki koy def dafa ñàkk fayda dafa ñàkk personnalité. football képp ku koy def ci Sénégal waxuma joueurs yi ma yor rek de joueurs yi nekk Sénégal yëpp li ñuy def ci football ñoom ñëpp am personnalité ñoom ñëpp am caractère ñoom ñëpp am engagement ñoom ñëpp am détermination. tu sais pourquoi ma wax loolu noonu c'est parce que chaque instant que jëfee li tax may wax loolu ndeysaan da ngay gis boy yi nee naa salarié bi le 27 ba le 10 day jot salaire am journalier bi ça bu wàccee bu xeyé huit heures su 16 seize heures ou bien 17 h heures dañ koy jox journée légui boy yi nak boy yi bu ñu entraînement mo xam fekk nañ fa coach bi mo xam coach bi yuuxu leen mo xam ndékki nañ mo xam wuñu bu subaa dañuy àndaatee seen ngor ñëw c'est parce que xam nga la tax plaisir la plaisir la man j'en suis sûr et certain ñom boy yi ni ku ci amone liggéey so démé sa patron bu la yuuxee non nga buude bàyyi ko foofu mais li ñu bëgg dañoo bëgg li ñuy def ba tax na ñoom xooluñu ci dara pour l'instant parce que liñ ciy xool moom mooy pour suba suba nag du demee samedi c'est dans l'avenir c'est dans l'avenir xale yi foog ñu jàppale leen naka lañ leen di jàppale chaque instant que jëfee bu xale bi ne man de football laa bëgg nga encadré ko ci football nga encadré ko ci football daan ko nag nee nga football nga bëgg mooy man li ma sampaapo papa bi may bay jang ah, ma ko ah man de gor gui say ma ngi jang mais suma ma ma football lan la ma wax mu ma ah ni nga don jangi je non ngay footballi ji moy ni nga don jangi je non ngay demee entraînement kër gui buguma la fay gis ngay taxawaalu gauche wala ngay taxawaalu droite et c'est très important c'est parce que bo baye dara pour dara fo nga def fula fo nga def fayda fo nga def jom fo nga def ngor parce que loolu ngor la ngor ñun nag Sénégal dañoo jàpp ni Ngor ak Gorée plage la te loolu ci nit yi lañ ko jëlee tuddee ko plage kon donc foog ñuy Gorée foog ñu ànd ak Ngor ci côté yëpp nag ñun foog ñu Gorée ñun côte yi joueurs yi aussi foog ñu Gorée ngir côte yi côte foog ñu Gorée vis-à-vis sur les joueurs joueurs yi tamit foog ñu Gorée vis-à-vis sur les côtes comprendre parce que des fois ndeysaan da ngay gis boy di ñew chaque instant que jëfé di rey seen bopp di jaayante di ñew ñu ñew fekk fa coach bo xamanteni des fois coach mën nga metti coach mën nga metti man amon na coach yo xamanteni ni ay yi kenn gënu leena tang mais sen professionnalisme taxna sen tangay yow di nga ko mëna gérer ça parce que lepp luñ lay wax du pour ñom lepp luñ lay wax pour sa njëriñ la lepp luñ lay wax pour sa njëriñ la jori aussi fokk ñu gore foog ñu gore sa parce que naka la ñuy goree moom mooy tey coach yi kenn fekku leen ci terrain bi ah du seen papa du seen yaay du seen mag du seen rak du kenn ku leen fekk ci terrain bu ñu xëyee suba ñoom ak coach yi rek la ñuy gis ngalawaay bu subaa bu subaa su dara feeñee dem leen ngeen xooli coach yooyu noonu dem leen ngeen xooli coach yooyu noonu sa parce que coach yi dañu diiñaa ni joueurs yi diiñee noonu la coach yi diiñee nu joueurs yi amee personnalité nu ko raw la coach yi amee personnalité des fois nag soo gisee lan moo tax booy ñu ci ëpp du ñu tàkk mukk sa parce que des fois war mooy am des fois nga gis coach yi ñu ci ëpp du ñu tàkk des fois war mooy am mu kenn ku ci nekk moom moo xam vis-à-vis coach moom moo xam joueur yi kenn ku ci nekk nay jox sa moroom li mu yellool kenn ku ci nekk nay jox sa moroom li mu moom kenn ku ci nekk nay respecté sa morom surtout surtout surtout joueur yi parce que coach yi des fois dañuy coonow pour ñoom dañuy coonowu dañuy xëy yenn heures yi coach yi du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg je pense que benn jour maa ngi koy wax euh, coach bala Sarr dama daje ak moom rek ma ne ko coach baal ma parce que sama coach la woon mu reetaan ni ma ndax la ma ne ko lii ngeen doon daj ci ñun mu ne ma gis nga affaire yi nii la demee waaye góorgóorlu leen dina baax loolu moom moo tax chaque instant que jëfee des fois damay xalaat coach yi waaye na dañuy xalaat booy c'est parce que dañu bàyyi lépp pour football. bu ñu bàyyi lépp pour football di jaamu football di def li football wax c'est parce que boy, généralement boy, généralement boy jour Sénégal yëpp ñi ngi jaamu football parce que li football wax yëpp ñi ngi koy def des fois nak yalla mom moy décider mais fexeel ba bu yalla décider bu décider nga signer pro di nga signer pro bu décider do signer pro fexeel ba kula gis daan ye eh dof bi bi ci nekkee jambar la won parce que li football laaj yëpp mi ngi ko doon def man boy football. laajal ñi ma xam ñëpp waxuma pour dara football amee lu ma ko dara football moo ma ameel football amul lu mu ma doon laaj te jox ma ko football moo ma ameel moo ma ameel ci côté yëpp man desee lu ma ko dara lépp nag li ma ameel yàlla na ko fay booy joueur Sénégal yëpp plus particulièrement Africa Sport Football Club xale yi fi nekk sa parce que man dama naw booy joueur Sénégal yëpp parce que heure yi may xëy di dem dangay gis booy yi seen saak bu ñu amul paas da nga leen di gis ñuy daw ñëwee nag coach bi au que mu jéem a comprendre lool des fois coach yi duñu comprendre lool gars yi te jour yi foog affaire bi jaral leen wallahi dama daan jóge boulangerie zone sama kër sœur laa nekkoon ay temps dama daan jóge boulangerie zone kër yaa faatu dama damaan daw ba géejawaay c'est parce que daaw ma am paas daaw ma am paas c'est parce que affaire bi jaraloon na ma boo ñaanee paas suba dañ la naan demal liggéey ji wallahi dañ la nane demal liggey ji legui nak pour éviter lolu nit di am accès ci man dama naan ah suba aw ma paas way marché sam lay entraîner jee école 15 ok dama yew 3 h du matin 4 h 5 h moy genn na keur commencé daw mam Gana Camara mo nekkoon sama coach bi mu démé ba bu ñëwé fekk mu xol daani ñaata minute ngeen am ñu ni ko 5 minutes mu ni pourquoi la ñaqe ñaxé ni té yéne ngi doga am 5 minutes diplomatie la biñu paré paree ma ana sa pass ma ko mi ngi sama sac ba fa la duma ñaan mi ngi sama sac mu ma eh, ana sa pass mi ngi sama sac mu ma wan mako paré ma ree ma demal kër ga nga sangu xaar ma ko indaale wu rek la indi mu ma demal kër ga bi démé mu bolé ma ak soxnaam soxnaam ndey mu jox ma yéré ensemble yu tax mo sol ñu jox ma relax fofu non ba ngor chaque semaine daf may jox pass semaine amna ko ta am naa ko te ñaanuma ko jour du ñaan jour du demande mooy am na benn waay lu muy wax nañuy nañuy laajante suñu biir ñun nañuy laajante suñu biir jour mën na laaj moroomu jouram jour mën na ñëw laaj coacham mais jour bu mu laaj koo xamante ni du du du jour parce que bu ko laajee rek bu subaa mun na ah booy dañuy laaj rek dañuy ñaan ndeysaan fii mu ñu taxaw di wax Lamine Sonko bu police sama coach la woon bu ñu gënee nekk xale xam nga lan lañ doon wax jour du ñàkk fayda jour day am fulla am fayda parce que mën nga ñaan ndékki tey suba nga jox waa koñ bi yëpp ndékki man ci foofu laa fay réew ba nga xamante ni lépp lu may def fulla ak fayda ngor koy non je t'assure non man du ma tàggatoo tàggatoo léegi kon gars yi ngi leen di saaraat di leen màggal di santaat di gërëmaat suñu présidente Taaja ak Papa Laay Touré ma ngi di sant di ak yeneen gars yi ciy jàpp yàpp maa leen sant di leen gërëm aussi nag di remercier xale yi parce que jox nañ ma cër jox cër boo xamante ni su ma leen ne trois heures du matin coup d'envoi quatre heures da gis ñu jóge yëmbal jóge géejawaay jóge pikin jóge kër masaar jóge ñaartali jóge faas ñenn ñi parcelle la ñuy jóge su ma koy wax nag dina am ñoo xamante ni dinañ mais laxaar lañ la ñuy wax nii mais billaahi wallaahi wa taalaay rus naa jomb naa taxaw di wax naka sudul noonu gars yi foog ñu bàyyi xel bu baax a baax booy te xam ne ay jàmbaar lañ quoi ay jàmbaar lañ booy jour Sénégal yëpp ay jàmbaar lañ foog ñu dimbali leen quoi foog ñu dimbali leen ci côté yëpp nag moom moo xam ci côté papier moom moo xam ci côté moral moom moo xam ci côté technique moo xam ci côté tactique ku ci